aousubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim barkeb sëriñ tuba xadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ci réew mi wala bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel boo leen gisee jataay bu tedd bii ci njiitu soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe ñu ngi waajal nag liggéey bu rëy boo xam ne nii naka jekk at mu jot ñu ko daan def ca Xelkom liggéey boobu nag du leen lu dut mbàccum gerte bees ko dajale ngooñ mi ak gerte gi soxna si nag mu koy ànd at mu jot ak waa kër sëriñ Mourtada Mbacke ibnu Cheikh Saliou Mbacke bis boobu nag ñu koy waajal wala liggéey bu am solo boobu nag ci teewaayu mboolem ñi nga xam ne ni ñoo def fédération ahlu kafe ak mboolem dongoy Serigne Mourtada moom Serigne Saliou ak mboolem mbokki judditi ak taalibe yi liggéey boobu nag la ñuy woote liggéey bi nag départ bi mu nga war a doon le 24 novembre 2021 ci kër Serigne Touba gi nekk Touba Daaru Mannaan di nuyu bu baax soxna mii nekk ci sunu ginnaaw ñu mal dëgmal tooli xelkoom di tooli sëriñ Touba Seyxu Salih Mbacke Xaadimu Rasuul yim fi bàyyil mboolem jullit ñi ngir ñu jariñoo ko ñu féete fële ca xelkoom daaru tansil ci njiitul sunu jëwrin sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mourtada moom sëriñ Salihu Mbacke ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér tool yoolee nag ñu ngi koy jàpp incha allahu rabbi la 24 ci wen ci weer wii ñu nekk incha allahu rabbi war caa dem ngir war ko saytu nañu ko sëriñ bi digalee ak nañu ko daan taxawoo ànd ko soxna si nga xam ne nii mooy soxna maam Issa Mbacke ahlu café ak ñi mu àndal liggéey boobu ci pas-pas ci ak taxawaay bu mat sëkk boo xamante ni kenn ku ne gis na ko muy jigéen bu man góor ci lépp loo xamante ni nii sëriñ Tuubaa woote na ko dañuy wax ne soxna maam Issa Mbacke ku dëbb ci lislaam rek soxna maam isa sóob na la rawatina ci yoonu Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon nag ñiy lu taxawaayam di ko ñaanal yàlla suñu borom sàmm ko aar ko musal ko moom mboolem ñi ma àndal liggéey bu sell bu màgg bu tedd boobu di liggéey Serigne Touba Xaadimu Rasuul soxna si kon ñi ngi koy woowaat fas yéene ànd ak moom ci ndigal loolu nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtala jox nañu ko ñu fas yéene koo taxawee ci ndigalal Serigne Cheikh moom Serigne Ahmadou moom Serigne Saliou Mbacké nga xamante ni lépp ci ci kilifteefam la waaye ci tool seriñ Serigne Mouhamadou Mourtala yi nga xam ne ni moom la ko yàlla féetalee ci tool yi Serigne Touba Khadim Rasoul yi ca Xelkom kon ñu ngi ciy woo mboolem mbokki julli yi mbokki taalibe yi soxna maam Issa Mbacké kenn ku ne gis na taxawaayam gis na pas-pasam gis na pasteefam saa bu Xelkom ñëwee lu mu mën dana ko ca def ànd ko ñam yi àndal ñëpp ci taxawaay bu mat sëkk kon ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp lu ñu fa jëpp Euh, ci at yi ñu passé yal na ko yàlla nangu te ful ko ci at yii ñu dëgmal lépp lu ñu ciy yéene def si borom may ñu kàttan may ñu wér may ñu tawféex gu ñu ko mën a jëfee ci barkib Serigne Touba Xaadimu sol kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ndigal bàyyikoo na fa mu daan bàyyikoo muy ci jëwriñi kër Serigne Salih ñëw ci Serigne Mourtada euh, jaar ci dongo yu baax yi ñëw ci soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe moom sëñ Modou Fati Xëri moom Cheikh Mazamba muy ndigal loo xam ne du ndax yàgg nañ koo woote ci waxtu wii muy tool bi nga xam ne dañ ko koo féetale ca daara ji ñuy tuddee daaru tanzil at mu jot ñu di ko bàcc bees ko dajale gerte gi ak ngooñ mi ren nag ñu war a départ àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre wi ñu nekk ci kër Sëñ Tuubaa gi ci Daaru Marnaan soxna si nag nee na mi ngi koy yëgal sëriñ Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif ndax day jëwriñam fa Cheikh Mamadul taxaa mu boole leen lu yàgg a yàgg lépp lu muy dëggu wax ko ko mu yëgal ko sëriñ bi waaye nag di leen wax ne tam oote bii mi ngi koy woote ci ndigalal jëwriñam di sëriñam di sëriñ Fàllu Mbàkke mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu sëriñ Modou Fati Xari ak mboolem njabootu sëriñ Modou Fati Xari gépp bàyyiwu ci kenn di ko yëgal nag mboolem fédération ahlu café daayire yi nekk ci biir réew mi ak daayire yi nekk ci bitim réew soxna si neen bàyyiwu ci kenn waaye mbooleem ñi nga xam ne dafa fasanteeg ñoom ko ak liggéeyal Sëriñ baa bàyyiwu ci kenn mi ngi woo ñëpp ñu koy yëgal nag waa daayira asaabul janna ci njiital soxna May Buso di ko yëgal daayira soppe maam Cheikh Ibrahima Fall ci njiital Sëriñ Maxtaar Ndiaye ak soxna Yaan Day Fay di ko yëgal itam daayira Matlabul Fawzayni ci njiital Sëriñ Abdoulaye Ndaam ak mbooleem ñi mu ko àndal ñëpp ren nag euh, liggéey bi soxna si day faral di ànd ki jàmbaar te jàmbaar soññ ko ak wax ko waaw góor day yokk ngóoraam ren nag bis bi mu féetale ko daayire Italie bi nekk Sardinia Touba Nooru ci njiital soxna maam Jaara Mbay ak soxna Atta Mbaw ak mboolem ñi ñu seqal daayire bi yëpp waaye tam di ko yëgal ajaratu Faamaloo ak waa Masalikul Jinaan yëpp ak mboolem fédération ahlu café ca Ndakaaru soxna Fat Ndour ak waa Fadia di ko yëgal itam ajaratu Mbay Njaay ak mboolem soppee Serigne Touba yëpp di ko yëgal tam soxna Boussa Niang ak mboolem waa Xombal soxna Sali Mbay ak waa Njaxiraat fédération Louga ci njiital Pape ak soxna Maam Jaare Diop ak Daouda Mbay di ko yëgal itam sëriñ ci buggee ci Mbuur di wëllëreem di ko yëgal itam monsieur le maire Abdoul Ahad Ka ndax tam ku ne xam ne ne kilifa la ci dëkk bi tey liggéey yu bari da ci jàppale soxna si moo tax mi ngi ko koy yëgal di ko yëgal tam xaritam di taala si la di meeru Thiès. di ko yëgal itam Bokar Diallo mbuur ak Elimane Samb ñu ngi leen koy yëgal bu baax a baax ñu soññ bokk yi féete mbuur yëpp di ko yëgal tam Baye Mbaye Ka ak bokk yi nekk Fatick sëriñ Mbaye seen Kër Lamine ñu ngi ko koy yëgal moom itam ñooñu nag dañuy ay keno rek waaye képp koo xam ne bokk nga ci fédération ahlu kafe na nga xam ne kàddu gii nu yëkkati ci turu soxna si ci yow la jëm si tooli xel kom nag waxoon naa ko moog sar saaraayam Serigne Saliou dane woon su ko leeroon ni ñëpp dem nañ xel kom ko woote ndax li mu bëgg mooy nit ñi seen aajo faju àddina ak àllaaxira te loolu ci liggéey sëñ Tuubaa lañ ko mën a amee wax di awaa ijël lazina daamu fii xidmati wa ablahum maaramo soxna si di ko roy ca loola sarsaar ji muy woote muy wax ne su ko leeroon ne ñëpp dem nañ sarsaar dootu ko woote ndax su boobaa ñëpp tàggoo nañu ak bàkkaar kon nag mbokk yi bis bi lépp nuñ ko daan jàppee nañ ko ni jàppee ñi nga xam ne tam dañoo yor ay organisation yoo xam dañoo yor oto moo xam ay benn la moo xam oto yu mag la moo xam oto yu ndaw la moo xam gasoil la moo xam lépp loo xam ne lu ñuy ittewoo la ngir tool mën a gaaw a yegg soxna si ne mi ngi ciy tàllal loxo képp ku mas a lebal bor ci liggéeyal Serigne Touba te loola yaatu na ndax képp ko mas a woo wuy si na la Serigne Jili soxna si nag nee na mi ngi leen di yóbbante cant ci Serigne Mourtada te di ko gërëm bu baax a baax a baax xanaa damay abbu bayit wi nga xam ne rek moom la yonent bi waxoon wa moom la Serigne Touba waxoon yonent bi te bayit woowa nekk ci turundum Serigne Mourtada te yaatal gii mu yaatal tam loola rek la firndeel bi daa waxoon ne laka matabiya bi shukrin warida yaa waasian wasaxtali bi murtada ku ne xam na ne yonent bi la ci sëñ bi jublu woon ndax yaatal gi mu yaatal diine waaye sëñ murtada mii di turandoom li mu yaatal liggéey sëñ tubaa ci àddina ñëpp gis nañ ko moom itam lii mu def tey yaatal liggéey sëñ tubaa rek li ci jublu ak bañ a fàtte ay bokkam waaye am na ñu ko defaral tool ya waaye daa xam ne nag jàmbaar dañ koy soññ te ki nekk ci waaru sëriñ bi loo ko gën a soññ ci sëñ bi rek muy gën a góor góorlu ndax dama déggoon ci sama sëriñ Cheikh Mamadou Moussa sëñ Abdoulaye mu ne sëñ Abdoulaye ko woon sëriñ loo ko gën a xam rek gën koo nangoo liggéeyal tooli xel kom yi kon mi ngi noonu ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn woote bi tam fàttewuñ ci maître Madické Niang di jëwriñu kër ma Massamba digganteem ak soxna si ku ne xam ko koor gi lim indi ci kafe ak suukar mën naa yewénal liggéey bépp ak waa bureau bi nga xam ne ñoom lañ séqal liggéey bi ñuy jàppale soxna si te sëñ daam karaam yi su fi teewee ñëpp teew nañ fi kon daal loolu mooy woote bi